leen ziar bu baax a baax a baax cuun di ñaanal yàlla Cheikh Béthio ah, tabaarakallah ñun man Selbé Ndom tiituma ci Cheikh Béthio étage ba ma gis Cheikh Béthio taxaw di taxaw ci suuf di wax ak ay xale yu góor étage ba dafa ku bëggoon nag peinture bu weex la Cheikh Béthio moom loolu moom gis naa ko ndax étage bu ma ko gis bis bu ma gaañoo ba yóbbu ko keroog bu ma tëddee ca guddi laa gis mu taxaw ci immeuble boo xam ne da séen waaye doo xam kër gi fu mu yem kër gu weex tal ñu penc ko pentir bu weex tal mais mi ngi taxaw ay góor di wax ak ñoom yéegagul ci kër gi kon maanaam macha allah am nañ ci moom yaakaar ne li muy def ci àddina yàlla nga koy fay yàlla fay na ko këram góoram ak googu tabarakallahu macha allah dañ koy ñeekay waaye tabarakallah tiituluñ ko maanaam njaboot gi mu bàyyi tamit nañ xam ne ki fi nekkoon dem na muy Cheikh Béthio doon jaamu Serigne Saliou taalibe Serigne Saliou baax nag mën de Cheikh Béthio bëgg naa ko ndax Cheikh Béthio li mu doon def yëpp laa bëgg man Selbé Ndom barke Cheikhul Khadim di ñaan Serigne Saliou Thioune mi nga xam ne mooy taawam maanaam fi papam nekkoon rek moom tam na fa teg tànkam Cheikh Béthio maye na ay kër Cheikh Béthio tabaarakallahu lekk gi giléem yéeg nag yi ñëpp xam nañ Cheikh Béthio ci lu baax di maye ay taalibeem di leen di leen yóbbu bitim réew maa ngi ñaan sëñ Saliou Thioune moom mu fi yàlla teg maanaam uh, mu def lu raw li papaam def ndax xale la yàlla na ko ko yàlla defal ci daraja yeneen di ko ko jaale di ko jàll àddina bi di ko jaale sama bopp ndax Cheikh Béthio Cheikh Béthio àddina bi la wax dëgg yàlla man de musuma may juróomi dërëm waaye li muy def màggalu Tuubaa rek man sama xol bi day seetu guy yàlla na ko yàlla fay ci àddina àjjana yu gën a kawe da di famille bu nekk du ñàkk ab waaye àdduna ba mu sosoo ba tey Euh, gis ñu jabar ju doon lu jëkkëram te mu am ay doom waa te soxna Aida tamit ku baax la ab taalibe sëñ sëñ Béthio la euh, damay dégg mu naan fi nga ma jële ak fi nga ma jëme maanaam na muñ te xam ne maanaam sëñ Béthio ko waxoon ne ko yaay man may yow mais loolu taxul moom mu doon mu doon ndax euh, gis nga gis naa taawu Cheikh Béthio bu jigéen bi li wax tamit neexul mais tamit faaw faaw doomam bu góor taaw bi mooy donn bu nekkee ñu séeréer sa doom mooy mooy mooy donn waaw xale yi moom tey jii sëñ Saaliw Cuun tabaarakallaahu bu demee ba xalifaam jeex rakkam may jël waaw noonu la noon rek la waaye dara aay ci di di leen ko jaale ñoom soxna yi Seex Béthio yëpp di leen ko jaale bu baax baax ñu muñ te xam na yàlla moo leen ko joxe woon te yàlla jël na ko ñoom seen bopp ñu muñ kenn bañ leen ñu bañ a ñaawoo ndax àdduna bi yëpp ñu ngi leen di déglu Cheikh Béthio yàlla da ko may tur boo xam ne fii Sénégal may ko fi kenn tabaarakallaahu sëriñ sëpp fonk nañ Cheikh Béthio kon ñoom bu ñu werante sax surtout surtout soxna Aida moom na na bàyyi lépp man moom a gën a man Selbé na bàyyi lépp ndax euh, gis naa ko xam euh, soxna soxna Aida góor góorgóorlu gis naa ko ko xam-xam bu baax a baax ku baax la ku muñ la Euh, am na fu yu metti yu mu jaaroon te tey yàlla dimbali na ko boole ko Cheikh Béthio ba coono yëpp yàlla teggil ko ko kon nag moom fi mu ne nii tabaarakallaahu dégg naa day dagg ay terrain di ko maye moom soxna Aida kon loolu lu baax la na muñ ànd ak yàlla yuñ tuddee sëñ Tuubaa topp ci ginnaaw sëñ Saaliw Cuun rek xam ne mooy taaw bi man loolu laa koy conseillé